ubbil yéenekaay bi ci diggante Yoff Kër Massar Rufisque yëmbal fa ñu jàppee fukki nit ak ñaar yooyee ci ñoom ñett nga ca ñoo xam ne li enquête bi feeñale gum mooy bokk nañu ci ñi attaqué woon watab tata bi foofee ca Yaraax Soleil national mi ngi ñuy waxit ne ña faatu woon ci attaque ba ñaari xale yu jigéen lañu ay mag ak rakk lañu mag ji Faatumata Binta Diallo la tudd rakk ji mi ngi tudd ci wuyoo ci turu Umu Kultum Diallo mi ngi tolloon ci juróom-ñaari at L'Observateur dëkk gisee nañu ak seen baay di Mamadou Yoro Diallo ak kii di Aïssata Ba mi nga xam ne moo jur kenn ci ñaari xale yi di Oumou Diallo loolee nga xamante ne ji gis nañ ko fa ñoom waa l'Observateur fa la ñu jàngee ne ñaari xale yu jigéen yi ci minibusu tata bi ca la lakk ba jeex tàkk la des ci seen i ay cër mbokk yi nee nañu bi ñu leen ko wanee seen àdduna bi yépp a tukki ci hôpital Idrissa Pouye ba Grand Yoff fa la ñu ko yóbbu li ñuy seet mooy ana nan la ñuy def ba amal ci autopsie laata ñu leen di ñu mën leen a suul mi ngi ñuy wax ne sulliku na démb gouvernement bi séqoon ak taskatu xabaar yi porte-parole gouvernement bi di Abdou Karim Fofana fa la joxe ca ñu agressé ñawoon ci bus ba jël li ñu yoroon mu di seeni saag seeni téléphone ba ñu génnee ca wet ga fa la ñu ko sànne moom Abdou Karim Fofana ministre commerce porte-parole gouvernement bi moom ak naataangoom bii di maître Aïssata Tall Sall ministre affaires étrangères ba ñuy jano ak journaliste yi Source A ngi ñuy wax ne wax nañu jëmee ci jàpp gi ñu jàpp Ousmane Sonko ci tas tas gi ñu tas partem bi mu di Pastef ak ci mbiri Juan Branco mi ñu doon tere réew mi mandat d'arrêt international ko mu defoon i pexem bu dugg si Ndakaaru Sud Quotidien di ko dëggal ci xëtamu njëkk li mu bind may gouvernement bi wax na ci lépp mu di ci bisu aftu ba ñu taaloon ca yaraax di ci tas gi ñu tas parti Ousmane Sonko bi di Pastef ba ci coup d'état ba am ci réewum Niger ponk boobee mu di coup d'état ba ci réewum Niger journal Bës Bi Le Jour ngi a yónnee ay ca Niger soldaar yi Sénégal danañu bokk ca ña cay dem ñu dem ci journal quotidien fekk fa pas pasu Pastef gi mel luy bëgg a ficciku xët mu njëkku yéenekaay bi li mu bind mooy tas nañu parti Pastef teg nañu loxo Ousmane Sonko Ben Taleb Sow ak Toussaint Manga mandat dépôt nañu leen Abbas mi adjoint maire Ndakaaru Le Quotidien nee nañu aw na yoonu ñàkk ndombal tànk adjoint bi mu amee fa ndax dañuy falaat adjoint yi ca maire bu Dakar te in fokk gi ci Cour suprême santaane te loolee su la weneen wu tëbin ci foofee fa la président Macky Sall toll ci tànn gi mu war a tànnal waa Benno Bokk Yaakaar candidat yéenekaay bi di l'Observateur xëy ak ñun ci ndaje mi ñu woote woon démb ci palais de la République ngir waroon ci waxtaan ba juboo ci kan la ñuy jiital journal bi mi ngi ñuy nettil ndaje maak na mu demee benn benn dem na ba ñuy xamal ne am na responsable yi Benno Bokk Yaakaar yu fa newoon ci jotaay ba euh, déception la ñu amee ba dañoo mujj dem candidat yu bari yi nga xam ne moo ci am mooy di jur déception bi fukki candidature ak benn tege nañu ci taabali président Macky Sall ca la leen Macky xamale ne indil ngeen ma problème ndax mënatuma tànn Mouhamadou Makhtar Cissé journal bi nee nañu toogu fa ba ndaje ma jeex kii di Mansour Faye it bi mu ne dafa bëgg doon candidat l'observateur nee nañu Macky Sall moo ko ne du ca dal kàdduy dëgg yu weex yafa maam buy jaawu yëkkati l'observateur dikkaan na ci ñun ba di ñu xamal ne délai ñetti fan moom la Macky Sall may gaayam yi ngir ñu waxtaan ba juboo ci kan la ñuy tànn lii quotidien nañu tànnee fii du yomb ci Macky moo ñu ko moo tax it delloo na gaañi carte ko joxoon nee na leen yéen a ne naa leen tànnal waaye candidat yi bari na na bari goo xam ne mënatuma tànn direct news di ñu xamal ne Mansour Faye bëggoon naa doon candidat waaye Macky Sall moo ko recalé tànneefu candidat ci biir Benno Bokk Yaakaar enquête mi ngi ñuy wax ne bu doon jigéeni biir la ñu ne wasinam du yomb li dul yomb a réglé waa Grand Place nee nañu mooy mbirum Karim ak Khalifa Ababacar Sall yi ñu bëgg a réhabilité ndax loolee bu anto am nañu jàpp ne ak injustice financière dëgg lay doon ndax muy Karim da leen a daan ndax ay délit financier ñu ni a loolee li mu a jur mooy dugal ak injustice financière ci processus électoral bi. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér wóor aju ci réew mi ak ci bitim